صفقت لي رب البرية البدن أزال أغاد من خلوني بددا صفقت لي رب البرية البدن أزال خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين ak waxtu wi cheikh Mouhamadul Fadel cheikh Mouhamadou Xabbaan ibnu cheikh Mouhamadul Fadel mi jëwriñi liggéey bi alquran ji te ànd ko ak sëriñ Moustapha am sëriñ Mahmoudan ci xaside yi ñaari ñaari kii la de si ñu ne ñaari ñaari yëpp si ñu ko euh, ak kon mbooloo mi yëpp nga xam ne ñoo xëy si woon fii ci barab bi di wéyal ndigal li kon dañuy maase teewlu euh, Cheikh Mouhamadul Xabaan ngir liggéey bi bii mu noppee euh, léegi ci gannaaw tisbaar ànd nañ ci sëriñ ba sëriñ bi jotal ko jël sahaada yi ñaan ci wax ne nañ wax donga yi ko doon tari ne le ne maak ñooma ci yem sëriñ Touba gis na ko léegi ci gannaaw tisbaar waxit ne Cheikh Mouhamadul Xabaat mii moo ci jëmmam su ngeen ko gisee moom gis ngeen ko moom ñaari yoon kon euh, moo ko wuutu ci mbooloo mi loolu daf cee kii ne ma loolu na leen ko biral bu baax a baax xam ne sa sahaada yii maak ñooma ci yem sëriñ Touba gis na ko te lu xis gis doy na sëñ Modou Xabaat mii ci seen biirit Eh, mu ñoom buñ ko gisee gis nañ ma ñaari yoon gis nañ sëñ Modou Xabaan gis nañ ma man sëñ Muntaqa kon sëñ Modou Xabaan moom nag lañ bëgg a jox kàddu gi incha allah. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. sëriñ Mouhamadul Xabaan ibn Cheikh Mouhamadul Fadil nee na mi ngi nuyu mbokki jullit yépp ak mbokki taalibe yi. ci turu Cheikh Mouhamadul Bachir. mu jëlee digal li ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa Cheikh Mouhamadul Basir Cheikh Cheikh Mouhamadul Xaban nee na mi ngi ñaan suñu borom yàggal la fi lool. ndax sa taxawaay ci yoon wi. noppal goo noppal say kilifa. noppal goo noppal say kilifa. yàlla na la suñu borom noppal. te guddal sa fan te wéral say cër. nga yàgg a doxal lii ñu lay doxloo. lii muy wax nii nee na yow yaa ko moom. yaa ko ci jox ndigal sàkk ko ci moom mu wax. mbokk taalibe yëpp sëñ moom it ci ni yoon yu baaxoo nee na moo ko yalwaan waaye waaw ne suñu ko jox ndigal waaye da koo yalwaan mu ngi Cheikh Mouhamadul Bas Cheikh sëñ Mouhamadul Xabbaan nee na mi ngi siyaare Cheikh Mouhamadul Muntaqa ak bokki taalibe yëpp di nuyoo ci aw turam di ñaan yàlla yàggal ko fi moom Cheikh Mouhamadul Muntaqa ci taxawaayam ci yoon wi ci ay jëfam ak i cofeelam ci taalibe yi sëriñ bi nee na sant na leen bu baax a baax a baax lii ñu nekkoon ci fan yi yëpp muy njàngum alquran mi ak njàngum xasida mi ak ñi leen doon gunge ci loolu ak ñi yoroon bernde yi mboolem ku ci jàppoon rek. ak mboolem ku ci jàppoon. bu baax a baax. bi sant na leen baax a baax. mi ngi ñaan itam sëriñ daara yi doon téyel gone yi ñuy tari. mi ngi ñaanal it sëriñ daara yi doon téyel gone yi ñuy tari. sant santam gone yi doon tari. di sant it gone yi doon tari. mboolem kilifa yi ko yi ko ko ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo leen doon taxaw. léegi mooy ak taalibe. Ah. lii mooy ak ndax lii rek mooy ak taalibe. ñu ngi rafet njort bu baax. ñu ngi nee na ñu ngi rafet njort bu baax. ci fayuk seexul xadim si ci ñun. ci fayuk seexul gi jëm si ci ñun. ñaan yàlla. di ñaan yàlla. nii ngeen ko taxawee. nii ngeen ko taxawee. ñu taxawee ko at yu baree baree bari. ku ne na nga bàyyee sa yitte. ku ne na nga bàyyee sa yitte. nekkoon ci yitteem. nekkoon ci yitteem. muy njàngum alquran mi. ak njàngum xasida mi. suñ borom wuutu la ci sa bopp. wuutu la ci sa njaboot. defal la xéewal yu baree baree bari. ci barkeb Seexul Xadiim. sëriñ bi nee mi ngi sant ñëpp. di am yaakaar ju wér a wér ndax lii ngeen nekke woon fan yi yëpp ci muharram ba léegi gis nañu ni mu demee ci jamono ji tey incha allahu day jëm kanam rek kon sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di leen ñaanal di bàyyi Cheikh Mouhamadul Bachir mu àggale li ci des dañuy taamu kàddoom ndax su waxee rek wér na ne Cheikh Mouhamadul Muntaxa ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha yàgg fi lool te ba li mu yéenee liggéey seen lépp mu def ko ni ñu ko bëggee ñu ànd ko moom di nuyu kilifa yi teew ci jotaay bi di Cheikh Mouhamadul Xaban ak Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne mooy kàddu sëriñ bi santaat bu baax ci ñoo ko baax waxee rek ndax eh, tawfeex mi ngi yam ci yàlla dimbale la nga am loo mën a liggéeyale sëriñ bi bu noppi it bi jox la ndigal ci nga liggéeyal ko kon li nga xam ne ñu koy taxaw fii ànd ko ak nga jàngkati xaside yi kon dañ ci am cant bu rëy rëy xam ni loolu ndimbal la daanaka kàddu yi di gudd ndax li ma da wax lépp moo la xamal wax na ko ak yi ñu war a topp sama kàddu kon kàddu cant lay doon ak ñaan ak yéen nag di fàttali tuuti ci bis bi nga xamee ni mooy màggalu Tuuba ndax Sëriñ Tuuba dafa wax ne bi mu nekkee ci liggéey bi da doon jaabante ci diggante laa ilaha illallahu ak muhammadu rasulullah bu bëggee noppalu di noppalu ci fàttaliku gaa yu baax yi na booba tubaab yi mu nekkal nag ñoom ñu ngi jàppante ci diggante marchandise ak service bu ñu jógee noppalu di noppaloo sonal waaye nag mu ne la ma nekkoon moo tax diggante marchandise ak service la ci am njariñ lépp sunu borom ñotti na ko la ci amul njariñ bu dàqal na ko kon ndax na nañu xam ne sëriñ bi liggéey na lépp ba mu sotti kon nag yàlla na yàlla dimbale ba ñu mën koo topp mën koo roy mën a topp ay ndigalam mën a xeeñ la nekkoon teg ci sunu sànq te bañ caa sotti ko sànn saa ñu ngi sant ay gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi jëmmi Serigne di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñi ngi leen di. jotli kàddu yu nuyoo yu bàyyi ko ci moom ak kàddu yu cant ak i ngërëm te wax na ko léegi cheikh Mouhamadul Xaban mbàkkeem cheikh Mouhamadou Fadil mi nga xam ne yàlla def na liggéey bii ginnaaw mbokkam mu baax ma sëriñ Mamour ci loxoom la ko teg waaye mu matali ko sëkk lépp rek di wan ne mbirum Sëriñ du taxaw ni ma koy faral di waxee rek bi mu fi bàyyi ko xel yépp gëlëmoon nañ jaaxle nañ ndax taxawaayam bu rafet ak yéeneem ju sell ak matul jikkoom waaye mel na ne mi ngi fi ba gën génn ko fenn kon sëriñ xaban ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal nam la ko waxee woon keroog ba muy teg liggéey bi ci sa loxo ci sama kanam ne la maa ngi ñaan liggéey bi sotti te àgg te yàgg ci say loxo ba fa nga ko bëgg yóbbu nga yóbbu fa kon loolu itam ñu ngi ànd ak sëriñ bi di taataan di ko ñaan. ndax xam na ne mate nga moom te da ñaanal bu baax ak mboolem ñi nga seq liggéey bi yëpp bayiwuñ kenn te buñ ci tuddee sëriñ Khady Diakhaté nii moom itam yitteem ak pastéefam ak taxawaay mate na ko ndax liggéey bi ëpp na fukki at mës si jëlle waaye kenn du ko ci soññ kon moom itam ñu ngi ko sant ak mboolem Serigne daare yi nga xam ne ñoom ñëpp la àndal liggéey bii ñuy liggéeyal Serigne Touba ci alxuraan ci biir safar. te xasida yi ma doon jàng léegi doy na sëkk fiir firnde di nuyu itam sëriñ Moustapha Mbacke sëriñ Mahmoudane bi nga xam ne wàllu xasida yi mooy ba liggéey bi tàmbalee ba nëgëni ma ci yónni sa ndaw ko fàttali xam na ne Sëriñ Tuubaa kenn du ko ci soññ mu ngi ci def taxawaay def ji di ci def yitte di ci def lam man ak di ci def la mënut te liggéey bi itam lépp mel na nañ ko bëggee kon ñu ngi koy ñaanal moo itam la maam ju tedd ja ma Cheikh Massamba Serigne Touba doon ko liggéey liggéeyloo ci biir xasay xasay di mu di ko sotti ndax nit ñi sax ñu bari dangay dégg ñu naan lu sëñ lu sëñ bi bind sëñ Massamba ko maas xëy na loolu ak jotal di ci ëpp ndax mbind sëñ bi yaakaar naa boo ko doon xool nga gis si luñ maas bariwul loolu waaye nag xasida gu sëñ ma a bind rek moom la ko jox da ko sotti ko loolu la yaakaar naa moo gën a métti sax nit ñi nit ñi dañuy jaawale léeg-léeg boo demoon ca kàggu siñ bi nga di ko xool boo xooloon liñ ci maas yaakaar naa mutut fukk kon sa kilifa boo koy waxal rek dee ko waxal li am xasida ko siñ mës a génne wala waxtaan wu mës a waxtaan siñ ma sàmba naa la ko ma sàmba jot la ko fere yi xasida ko mës a bind bëgg nit ñi jariñoo ko moom la ko daa jot mu sotti ko nit ñi jariñoo ko xasida yi cëpp ci moom lañ ko xamee kon nag bu jugaatee di tax di dox taxawaaye bii dañ koy tàbbal ci liggéeyam boobee naa ba tàyyi bisub àllarba ak Seex bu Mbàkke yàlla suñu borom dolli ay leer moo laajte ba xam waa loolu waa kër Moussa suñu wax moo doon yim nit bu ñu ne nañ yëkkati te xam naa ne loolu rek la ci doon jeex a ci doon bi may ñëw nag maa ngi ànd ak sama ñaari mbokk yu tëdd yi nga xam ne ñoo ànd liggéey bi muy Serigne Cheikh Baara mu suñ Abdoul Ahad Baara suñ Cheikh Baara mooy ñu ko sant ci yitteem ak taxawaayam posté foofu di sant itam Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ibnu Serigne Cheikh Gaynde Fatma mi nga xam ne mooy bañ so bañ sosee jataay bi ba nëgë mosuma cee ñëw te ànduma moom ba keroog bis ba fi waay juróom di bàyyi ko yàlla dogal na fii lañ bàyyi ko jëm ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ci yoon wi lañ ko ko wax kon loolu firnde liggéey bu nangu la kon daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di soññ itam suñ mbokki suñ daara yi ñu xam ne kat. yàlla ber na leen cër ci biir liggéey Sëriñ Tuubaa bi ndax dëkk bii kat boo ko Sëriñ Tuubaa di sanc daa waxoon ne yaar rek a tax ma sanc ko daw nit ñi ak daw li nokki daw daw li nekk ci loxo nit ñi boo demee ci Jasaawu Shukuur daa waxoon ne li tax ma sanc ko mooy li taallum wa taalim Mbàkke Bari it noonu kon xam ngeen ne sëriñ bi ba ci Rawdu Rayaahiin mës sa danaa wax ne waxtaanuma damay jàngale kon nag njàngale moom li muy yaatu yaatu di xam-xamu diine njàngum alxuraan kon nag yéen nañ xam ne am ngeen doon ci biir liggéey suñu Tuubaa bi ndax falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yattafaqahu fi diine wa li yunziru kon na ngeen xam ne bu ngeen ko defutoon kat ñun ñëpp bàkkaar bi suñ ko lay wàcc kon nag yéen ñi yéen ñi ci wutu ñëpp. di ko sellal nañ ci gën a góor góorgóorlu bu baax te fexe it ba na ko sëriñ bi sose woon njabootam ku baax ngi sàmm ko ba ndëgg ni nañ fexe buñ ko wàcc buñ ci dugal modernité buñ buñ ci jamono dugg ci jëm ko soppi dara lu weesu bàyyi ko nii nga xam ne nii la ko alxuraan suñ borom wàcce woon ci alxuraan ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sàmm ko tàmbalee ci xulafaawul arbaa al mazahibul Eh, aqta bi ba agsi ci jamono jii kon loola nañ xam ne dara lu ko gën a wér amut dara lu ko gën a jub amut kon loolu rek la ñu amaat ci lu ñuy fàttali ci soññaat leen ci ñu gën cee góorgóorlu te xam ne fii ngeen di liggéey rek Sëriñ Tuubaa barab bii ña xam dëkk bi te xam mbootum dëkk bi xam ne ne mbootum dëkk bi moo fi ne waxtaan bu suñu nangu benn yoon benn yoon lañ fi masali fu baas exposition ca déwén seen ko bañ xam ne histoire ba moo a fii moom lii képp moo fi war a ne kon ñu ngi sant ñëpp di ñaanalaat bu baax suñu mag ju baax ja sëriñ Mamour Mbackeem Cheikh Mamadou Fadil ñaan suñu borom dolli ci barkeem te dëgëral ak njabootam yàbbal yàggal fi nag rakkam ji di Cheikh Mamadou Xabaan Mbackeem Cheikh nga xam ne bu ñu ko dénkee liggéey bu alxuraan du bett kenn ndax xam ngeen ne ba ko way juróom di yóbbu màkk boobu teel naa bindu kamil lool ba daanaka toog ci loolu sa xaw ko woon te lim fi bind téere bari na ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa bi bind na rek téere ci loxo kon war na leen mën a jiite te nuyu suñu jigéen bi di soxna maam xarit Cheikh Mamadou Mourtada wax nañ ma taxawaay bi mu fi taxaw waaye fii moom lu fa waay defee rek sa bopp mu ko defal rawatina moom ndax dama leen di ne lu jëm ci jumaay ak màggal Tuubaa jërul ne diw def na fi nangam ndax loolu day yàq jëf laa tubtuloo sadaqaatikum bil manni wal adaa waaye kam ko seqal di Sëriñ Tuubaa lu ko waay jëfal balaa waxtu waa delsi da xamal ci sa bopp ne jëfal nga ko mën a jëfal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo